Serigne Chérif Fantamadi moom Cheikh Mamadou Fadal ci la agsi Amsatou Sow Sidibé di wëllëre Abdoulaye Alaaji Abdoulaye ci la agsi maître Mbaye Dieng taalibe Serigne Touba moom itam ci la aksi Serigne Abo sa mag yi nga bokkal maam Cheikh Anta sa rakk yi nga bokkal maam Cheikh Anta ñëpp a ngi lay sant di ko seereel àddina sa doom yi nga xam ne yaa leen jaboote ci kër Serigne Modou Mamoun ci njiital Serigne Cheikh Anta moom Serigne Modou Rokhaya Serigne Sidi nekkal ko fi mi ngi lay sant di la gërëm mu Mahmoudul Mountakha départ na délégation alaaji Mbàkke yu fay Ablaye Jam mi ngi leen di sant alaaji Ablaye jottalil dëngeej bi kii mooy dëngeej bi dafa xat soxna may sëñ Abdu Xaadir bokk lépp waaye Cheikh Modou Mamoun bàyyam la sëñ Tuubaa di ñàkk bakkaar jottalil dëngeej bi léegi dama bëgg ñu may caméra yi ñu ñëw nii nañu ma may caméra yi ñuy ñëw nii caméraman yi nañu ma may ñuy jàkkaarloog sëriñ bi sécurité nañ ñu may caméra yi ñuy jàkkaarloog sëriñ bi. père sëriñ Abdou Lahadoum sëriñ Moustapha Caytu teew na fi teewal sëriñ Mamoun Mbacke xalifam sëriñ Moustapha Caytu mbooloo mi nu may caméraman yi ñu ñëw. sëriñ bi nee na asalaamaaleykum ne Cheikh Bo ne fi nuyu ne di sant ñëpp ne di gërëm ñëpp ne ne di ñaan sunu ne bëggoon naa waxtaan waaye Cheikh Mouhamadul Mountakha yegg si na daanaka ne dañ ko woo ne ko mi ngi dugg si waaye sëriñ bi ne mi ngi sant bokk yëpp ne ministre l'intérieur ndax waxal kooko moom sëriñ Abo mi ngi sant président la république ndax xam na taxawaayam teewee nag yow ministre l'intérieur yow mi fi teewal président de la république cantu Abdoulaye Dia di taalibeem maamam ànd ak maamam baayam ànd baayam tey mu ànd ak moom ne ci pénc mi di sant Moustapha Ndiaye doomi ndeyam ji ndax Moustapha Ndiaye moog Ablaye benn lañu ne sant Serigne Bassirou Mbacké moom Cheikh Adma Ba ne ak waa kër Serigne Gaawaan yëpp ne ak waa kër Serigne Touba yëpp ne ak waa kër Serigne Afé yëpp bàyyiwul kenn daal